dal leen ak jàmm mbokk internet yi ku boot bukki xaj baw la rawatina bu dee bukki bu mag ki ñëpp doon bow jamono ji muy rango ngir melokaanam yu doy waar yi nga xamante ne moom la nekk woon ci réseaux sociaux yi di publier ay nataal yu ñàkk xorma ci Instagram ak Snapchat ànd ak loolu organiser ci ay bés bi ñu weesu benn soirée privée ci anam gu ñu bari soppul ngir lënt-lënt ya ca nekk maanaam lëndëm-lëndëm ya xew ca soirée ba lu ci mel ni nekk gu mu nekk privé ànd ak loolu ticket ba doon jar deux dul tike koo xam ànd loolu di ci fësal ay melokaat yu ñàkk xorma lii lee tax ba ñu bëri jàpp ne ab prostitution déguisée la maanaam cagatu gu ñuy nëbb waaye lu ñu mënti nëbb tey moom lépp feeñ na ndayi mbili gi di ràngu wax na lépp waaw kay ci jamono joo xamante ne nag lu bari ci internet yi doon nañu samp ab laaj di wax ndax ndaw si maanaam ràngu moom ab cagala am déet ñi taxaw jamono ji nag fësal seen déedéet ci doxalin bu mel nii mooy wa ONG Jamra moom ONG a ak ci yi xeex mbon te ñu ràññee ne moom la rangu di amal ñoom nag fas nañu yéene ci nu mu gën a gaawee daal ca brigade des mœurs ànd ak loolu déposé ab plainte ca taabalu procureur de la république ba ñu àndandoo taataan ay kàddu ba Mame Mactar Gueye mi nga xamante ne mooy président ONG Jamra léegi plainte bi fan ngeen ci toll actuellement ni loolu laa lay tontu mhm. xam nga euh, euh, coow lu mel ni amoon na fi ak mm-hmm. la la ci nu mu tuddati les les dérives la. waaw muy série bi may bañ a tudd. Mm-hmm. xam nga ñun dañuy jóg rek dem seeti le gendarme de l'audiovisuel porte plainte. waaw. ñu door leen mise en demeure mooy boo leen ko fi defaatee lii ñu def business du sexe bu Walfadjri lañ leen di def c'est-à-dire interdire la série ba pare dóor a ak Walfadjri cinq millions d'amende xam nga ñoom kon dañu nekk en sursis. d'accord mais quest qui s'est passé. mm les gens dans les réseaux sociaux un peu partout ci wax sa xalaat yi. Mhm. Jamra da ngeen soxor. fii ce n'est pas un état islamique. Mhm. fii ce n'est pas l'Iran ce n'est pas l'Afghanistan ma waa kon lan ngeen bëgg. Mhm. ñu lu tax jiitalu leen woon waxtaan. pourquoi n'avez-vous privilégié le dialogue xam nga loolu lañ doon wax. waaw. ñu toog tuuti coow waa ñu fekk ñëw. waaw ñu daal di privilégié le dialogue. ñu ne de lu tax ngeen di wax ak moom du nit ku baax. waaw. voilà le Sénégal. Mhm. loolu tax nag bi coow rangu bi mhm. on a tenu compte de tout ça ñu ne kon ce qu'on va faire. waaw. on alerte. Mhm. l'alerte est faite. on prépare notre plainte elle est là. d'accord on a préparé notre saisine plainte bi war a jëm ca procureur mu ngi nii. la saisine bi war a jëm brigade des mœurs mu ngi nii. xam nga ñun nag léegi dañuy am c'est une tradition depuis des dizaines d'années. Euh, consistant a tenir des réunions hebdomadaires tous les vendredis. d'accord voilà vendredi nag. on va voir ce qui va se passer parce que xam nga moom mu ngi def ay vidéo def maa tey mhm. nee na soirée euh, onze janvier bii mu def mhm. dana ko tollanti le onze février waaw parce que tey dafa dafa xëy dafa dafa xëy def euh, def direct wax ni moom li muy def du si dellu ginnaaw daf koy continuer di def direct boobu ban réaction ngeen ci am il va voir mhm. léegi nag ñun on a mardi mercredi vendredi rek sans prendre sa décision. Personne ne pourra nous accuser d'avoir fait de la précipitation. Parce que ça, on lui a donné 72 heures. C'est le reculewul, comme vous voulez de ma, qui, de m'en informer. waaw. ñu gis ne nee na du reculer. Mm-hmm. mais c'est aussi simple que ça dañuy jël li ñu code pénal may. Mhm. ci wàllu outrage aux bonnes mœurs mhm. ci wàllu attentat à la pudeur article trois cent dix huit ak trois cent vingt quatre d'accord déposé ko ci procureur procureur def liggéeyam c'est léegi kon su ma la déggee mooy euh, jéem ngeen waxtaan ak moom pour mu dellu ginnaaw non xam nga boo waxee ak moom mhm. la lu tax ngay wax ak moom xam nga defoon nañ ma ko ci kaw Wally Seck lu tax ma fay dem ci wax ak moom gisoon nga coow loolu ñu toppoon d'accord waaw léegi nag moom demuma je vais pas aller la voir mais xam nga mu ngi ak ci média xam na ne que Jamra mu ngi am une plainte en instance. Mm-hmm. waaw léegi nag on a dit dans nos communications te maa ngi koy waxaat fii ci sa communication bi may def ak yow nii. waaw. Mm-hmm. on a dit dans nos communications. que c'est mm-hmm. à l'occasion de nos réunions hebdomadaires qu'on prend les les les les. donc donc daal euh, vendredi incha allah ngeen di jël benn décision ferme ba xam. voilà vendredi nag la ñuy décider. en fonction. de l'évolution de la situation. moo ngi noonu ñoo ko déggandoo waaye ana lu ci ndeyi mbi gi di rangu xalaat ci kàddu yooyu le mel ni ku naan ñàngalu ginaar saful paaka moom a rangu daal bul faale lay dund ak mbir mi teg ci di xamle ne dina dolliwaat mbir mi nga xamante ne jot na koo def di jox daje ay àndandoom le 11 février bii di ñëw ngir mu dàbbaliwaat mbir mi defaat ko nawoon fawoon boobule doxalin ci moom mel ni luy tuutal disposition du code pénal sur l'outrage aux bonnes mœurs et l'attentat maanaam yoon yi ñu teg ngir rëq ndigg ba képp koo xamante ne yaa ngi jalgati jikko yi ñu sopp ci réew mi ak di agressé ma doomu aadama yi waaye may ma nopp nag ma wax la li ci gën a yéeme mooy moom Rangou moomu wax na dëgg-dëgg ne moom kat dafay def ab prostitution waaw wow maanaam day cagatu ndax kat jàpp na ne wane yenn awra yi du dara ci moom te nee na nag bés buñ ko teree lii nga xamante ne mu ngi koy def dina génn réew mi waaw waaw nee na dina génn Sénégal dem feneen def nu gën a garaaw la mu jot a def waa xanaa lii nag mooy maa tey bon ay fu réew mi jëm jërë ngeen jëf dañ dikkaat ak yéen ngir indil leen ci yeneeni xibaar ma it nawloo naa leen ñoom ñoo tax ma def lii yéen benn soirée amuloo entre deux cent mille toogal maandul mais non nga ne yow da nga nga ne yow da ngay wax pour askan wi dégg la wala dangay ngay waxal pour yàlla nga ne ah jël rangu wax ju ñaaw ju nekk nga sëf ko rangu yow yow yow yow moomu toog rek sa temps déjà di wax rangu dafa bon rangu càggana rangu lii yow bu la yàlla àtte woon yow sa wàll jëmu bopp nga fàtte kaawu rangu ndax yaa ma ëppi bàkkaar fuuf ak fob alors Sénégal da ngeen seytaane ñi du ñépp nag mais ñenn ñi dañu seytaane dañu faux dañu hypocrite adduna bi lan la jeexul am ngeen seen problème gars yi yaa ngi fi di dajji kër jàmbur yi bellee da ngi nii jëni di dee te kenn xamul lan moo nekk di rey jëni si biir ndox bi lii laa bëgg ngeen xam ko rango du débat bi parce que man ci li ma nekk laa nekk aw ma jotu toog fenn naan kii daa fotow def istirin kii daa fotow de aw ma ko si sama liggéey laa nekk sama liggéey man rango lu mu laaj ma jox ko ko boo leen fi nekkee nag bëgg ma sonal ak ay rango day def lii rango day def lii man mën naa ko damay dem dagg sama billet toog dëkk ba ma saf te su boobaa li ngeen di gis moo nar moo leen gën a nar a naqari ka lii ngeen gis parce que gisoo leen fi dara fii lan moo fi ñor bañ koy màcc yéen sénégalais yéen da ngeen a bëgg a jël taat def ko def ko foo xamante ni taat yeggu fa guddi yi ñu toll taat moo gën a yomb loo munti am Sénégal fi ngeen bëgg ak aj taat taat yeggul foofu yéen silib ngeen tëb baa ngeen tëb istirin ngeen tëb ah taat mooy lan lan mooy taat what the lan mooy taat neen kii sonn bii kii sol na slip ah amuloo slip boo sol photo soo ko bëggee defar soo ko mën a nekkal si li nga nekk waaye rangu def na lii rangu def na lii ngeen fàtte programme yeeg dëkk beeg lekk ngeen topp rangu kërëb kërëb kërëb te ngeen dëkk bi sax bu ñu waxantee dëkk dëkk dëkk bi dëkk bi dafa war a a neex parce que euh, fii la gars yi di nekk ay waxu politique lañ ñuy wax ñii li ñu faral di wax rey nañu fee nit yooyu noonu des day neex kenn ku mel ni ràngu ngeen am ko di ambiance di felfelaale comme moo xew dindi seen stress dund loo leen fekkee ndax fii